monsieur le ministre dama lay féliciter di la encourager di wax ne nit ku baax nga nit ku sérieux nga liggéeykat nga am nga compétence looloo tax président garde la 12 ans di wax ne am na ku fi wax léegi xuloo sax du sama jikko te ki ma bëgg tontu gisuma ko fi mais dinaa yóbbante dañ ne régime socialiste dafa plombé dëkk bi waaye alhamdulilah ndax moo fi bàyyi ay milliards ba ka ko remplacer nos nos euh, nos soucis d'argent sont terminés kon loolu moom fa laay yem monsieur le ministre dañuy wax ne euh, ñun en tout cas li ñu remarqué moo di ba nga ñëwee ba léegi problème mu ndox mi problème yi du jeex waaye lu bare wàññeeku na. di wax ne gisaguma ku ñu yóbbu hôpital ne ndox la naan moo tax dafa feebar kon li nga wax ne ndox mi dañ koy contrôler ñun gëm nañ ko ñun géejawaay ak Pikine defe naa ne ku doon wax inondation si ñun la ëppoon mais géejawaay tey jii damay jël gunaas bi nga xam ne moo doon référence si ñun ba bu tawee ñun ñëpp fa lañ doon dem bàbbeeku di leen jàppale tey jii bu tawee bu sebetee rek ñu lal seen basang toog golf bi nga xam ne maa ko jiite woon bu tawaan population dañ may topp dama daan taxawaalu ci mbedd mi mais tey jii bu tawee day dem am na ku fi laajte léegi ne xaalis bi ñu génnee pour plan décennal bi fu mu dugg kooku dafa gàddaayu génn Sénégal dem donc liñ fi liggéey ci ginnaawam xamu ko ñuy gërëm nag président Macky Sall parce que moo bale diaspora bi kooku mën a ñëw Sénégal fii di ci wax kon li ci nekk moo di ñun fii assamble opposition comme pouvoir daje woon nañu def mission d'enquête indi kon xam nañu li nga xam ne loolu lañ ci liggéey xam nañu fu ouvrage yi nekk kon borom na dem ci archive assemblée nationale xool këyit bañ ko indil dina xam fan la xaalis boobu dugg moo gën mu taxaw fi di mbeleleel te xam lu xew